wa fikrati nawwir wa bi arshida mbokki taalibe yi yi ñuy topp yëpp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaar bu baax itam sëriñ kara moom sëriñ koso di ko ndokkeel itam ci bis bi nga xam ne mooy jublu si te mooy bisub ndoguy sarsaara yi nga xam ne sëñ koso liggéeyama bisam la itam ndax Cheikh Mouhamad Xaw Balla moom la ci daal liggéeyal ci bis boobu yàlla dogal itam bis bi mu wujjee boroomam ñu war koo ñaanal tombe ak bis yim daa def liggéey boob yi loolu nag di tawféex ju rëy yoo xam ni sunu borom baaxe na ko sëriñ Koso eh, ba tax na noo ngi ñaan yàlla. dolli ko ay leer fa mu ne te ñi nga xam la fi ñoom la fi bàyyi itam njaboot gi yàlla teg ci loxo te gën a dëgëral dolli sutura itam sëriñ eh, koso sëñ kara di siyaar itam sëñ koso mi nga xam ne <coughs> moom la eh, doxale suñ digg ak moom ginnaaw loolu nu war a waxtaan ci lu aju ci diggante sëriñ bi ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak diggam ak siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa eh, dafa jeex ci rasulullahi sallallahu alayhi wa da ko bëgg bëgg gu rëy gu eh, kawe goo xam ni deselu ca dara ndax da ko da jox léppam ndax Sëriñ Tuubaa mooy koo xam ni dara wax ne moom jenn yitte la am muy dàkk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysat liya al yawma xaajaatun u ammiluha si waqtifaika qafwal qalbi wal badani nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu abaahu nga xam ne yonente bi sallallahu ak bëggam moom lay wut moom lay dàkk moom lay wër moom lay jeex ci lépp mbir mu ne itam la ca rasulullahi tànn moom la cay tànn moom la cay jéem a xeeñtu itam ngir mën koo jëfe na ko rasulullahi sallallahu doon jëfee jeex gi mu jeex ci moom loolu waxtaane nañ ko ba tàyyi waaye ku ne xam na ne amoon na yittey siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye yàlla dugalu ko nag ci dundam maanaam mayu ko ko ci saahir mu dem siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wa waaye may na ko eh, wërsëgal na ko xaj gu ñu nangu ak siyaare gu ñu nangu ci rasulullah sallallahu alayhi loolu nag buñ ci xamee eh, astuut des na ci mën a natt nun ñi nga xam ne tey dañoo am sunuy sëriñ te yàlla dox doxale suñ digg ak ñoom eh, maanaam jafe-jafe am boo xam ne tax na nanu mënoon di siyaare jee xëy na mënewuñ ko noona nañ leen bëggoon di gise itam mënewuñ ko noona naka lañ ci war a taxawe ba lanu war a am ci ñoom nu amee ko ca ànd ak ñàkk gi ñu leen di ñàkk siyaare ak ñàkk gi ñàkk dem tuyaa ba nga xam ne moom lañu war a am ci buñ demoon nu man ko am loolu xëy na moom lañ ciy jëlee mooy mooy bind bi nga xam ne moom lañ ciy jànge ci buñ waxtaanee diggante sëriñ bi ak siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sëriñ Tuuba li ko siyaare lay jaraloon lu rëy rëy rëy gis nañ diirub Mamour Anta Sall di nekk ci kaw suufam ku ne xam ne ne yëngalu dara léppam da ko bàyyee woon ak Mamour Anta Sall mu doon kilifaam mu bàyyee ko mbiram amutoon ak tànn amu dawul yëngal dawul def dawul dindi loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ca Irwa una dem loolu la wax waaye nag bi fi Mamour Anta Sall jógee ca assasine boobee la tàmbali am yittey bëgg siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi bu ñu gisee diggante boobu assasine la tàmbalee gàmmo axyaytu mawlidan nabi min asasi boobee itam la tàmbali at mu ne mu mu mu mu mu mu jaayante waral ci boppam at mu ne dana def ay taalif yoo xam ne da koy def ci tagg yonente bi sallallahu alayhi da ko def bor ci ci ci jëmmam waaw euh, boobe itam diggante boobu xasida yi mu taalif dañuy seetlu ne amoon na cofeel gu rëy ak bëgg-bëgg bu rëy ngir bëgg a siyaare ji rasulullah sallallahu ndax léeg mu giñ ko léeg-léeg mu wax ne yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil il bilaadi dahaban wax ne maa ngi giñ ci yàlla ne ngi ngiñul yàlla mooy sama ngiñ ne kat siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi yàlla tànn day moo gën àdduna sépp ñu tegale ko ba mu fees ci ci alal ci xaalis ak or nee loolu ñu tegaleel ko ko suuf sépp ba mu fees del dem siyaare ji rasulullahi moo ko gënal loolu junj na ko ci bërëb yu baree baree bari wax ci lu baree baree bari Sëñ Tuubaa bëgg mu bëgg rasulullahi day ko kawe kawe ndax bëgg la koo xam ni léeg-léeg dangay gis mu giñ ci yàlla ne bëgg na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis mu wax ne eh, xayaati wa mamaati te loolu ma ngi ci njëlbeenuk eh, muqaddamatul xidma assugra da wax ne billahi alladi la ilaha illa huwa alalimu alkarimu xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax ne léppam mi ngi ko ànd ak moom ak yëngoom ak ak dalam ak nekkam ci àdduna ak ñàkk nekkam lépp daal mi ko ànd ak rasulullah te fasul yéene teqali ko ak moom ci leen waaw loolu bëggu nga xam ne daa àgg ci fàttaleeku mboolem lu may rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi wax ne yun si fuaadi xubbuhu xubbal wara fa kayfa la wa minhuma xustu jara wax ne bëggi gi ma ko bëgg fàttaloo na ma lu may moom am na feneen sax foo xam ne day wax ne fàtte naa mboolem lu aju ci xeetu jigéen ñeeg kër yeeg warukaay yeeg yëpp bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla nga xam ne dara wax sax ni àdduna lenn fi neex benn taar la am benn bànneexit la am mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam muhammadun zinatu dunia wa laddatuha salla alayhi alladi albahrayni qad maraja fi ne gis nañ ca jawharu nafis eh, nahju qadaayil xaaj ba mu koy taalif te loolu yàgg at moom am nañu jàpp ne jamonoy Tuubaa la la ko taalifee nga xam ne murid ñoo ko ñaan mu taalifal leen téere boo xam ni dañ cey jàngi ay teggin akuk taalibe tàmbali ba rek fi bu ca yemoon mu doy sëkk eh, maanaam lim jublu mooy jàngale ak ay teggin akuk jeex ci sa sëriñ ndax dafa wax ne qaala bnu cheikhihi alladi laa yaxmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu kii wax de Euh, doomi sëriñam la ndax Mamadou Anta Sali moo doon kilifaam di sëriñam di léppam nee na waaye waaye jëmmam daal lenn rek la ci am loo xam ni lu am solo la lu mat a sant te mooy tur wiñ ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax na gisul ci jëmmam leneen loo xam ne jar na am na solo mbaa mu mbaa mu toll nen ba jar sant qaala ibnu cheikhihi alladi laa yaxmadu fi nafsihi siwasmihi muhammadu maanaam moom dana wax ne tudd rasulullahi sallallahu mooy sama wétalu xol muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadai wa raaxaati maanaam tudd rasulullahi sallallahu ak di tudd aw di julli ci moom nee na loolu ci la bànneexub ci la sama bànneexub xol ne ci la sama leeruk xol ne ci la sama mbégteem xol ne itam sama cër yi itam looloo koy sawarloo waaw rasulullahi sallallahu nga xam ne moom danaa wax ne sax xol bi bu bu wéradee benn garab la am mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam roogit bu wéradee genn garab la muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shifa u jismi wa shifa u qalbi muhammadun salla alayhi rabbi waaw ba tax na tur bi ko wi nga xam ne moom la tudd nag ñu tuddee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woowu mooy li ko gënoon neex ne gis nga day wax ne ahmadu hada qaala inni ahmadu fa inna xayral xalqi xayral qawli inni ahmadu tàmbali xasida goo xam ni eh, dafa wax ne eh, ahmadu mii kat Eh, nee na maa ngi sant nee na ahmadu ma laa tudd nag wax moom la ca mu ngay mën a wax ne man ahmadu laa tudd ndax ahmadu mooy turu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ Tuubaa noonu la demoon nga xam ne yonente bi moo doon léppam daa wax ne mooy sama aljana wasilati wa jannati muhammadin salla alayhi bi salaamin samadi wasilati wa faridati nafilati wa sayidina shafiina muhammadin maanaam mooy sama farata mooy sama nafila mooy sama aj makka mooy sama lépp maanaam rasulullahi moo doon léppam buxyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi waaw nga xam ne eh, boo gisee dundam géppit dog ko jox addiya jumlatuma lii wa midaadi wa qalam hadiyatun lil mustafa baabi ni niam waaw lépp lu ma am rek def naa ko hadiya rasulullahi salaam loolu it dañuy gis léeg-léeg mu di ko lim benn par benn nga bu ne joxe naa sama lépp ñëpp jàpp ko waaye banneexu ci li mu waxoon ne tudd rasulullah sallallahu alayhi bànneex lu bu da cee ne <laughs> loolu yi ngay gis le rek mu mu koy lim wax ne xabawtuhu bi juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alan mu ne jox naa ko tey sama ruuxuk bopp xam nga lool doy na sëkk waaye teg naa ci yaram yaram it jox naa ko addiya waaye njaboot gi sama doom it jox naa ko addiya samay waajur tam jox naa ko addiya xam nga loolu <laughs> mi nga boo gisee njabootam gi ñëpp moom la ko tuddee yaa Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Yadali Mouhamadul Fadilu Mouhamadul Bachir Ahmadu am na ci ñaar Mouhamadul Muxtaar ba ci asaalixu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ko tuddee muy dem nga xam ne njaboot gépp la ko delluwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi moo doon léppam mu tegoon ko fu kawe eh, ca njëlbeen nag ba fi Maamar daan Sali jógee ni ma ko waxee la amoon yitte yi bëgg a aji màkk loolu ñaan na ko ba tàyyi gis nañ lu mel ne xasida futuxul mukarrimi bokk ca xasida yu njëkk ya day wax ne xudduniya an azurahu bi jës ba maa ngi lay ñaan nga nga xëcci ma daal wammat ma defal mag jàppandi ci ma mën a siyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu ñaan na ko suñ borom ba tàyyi léeg-léeg nga gis mu wax ne arju bi rahmatihil muhdaati sayyidina zawri madinatahu daara rayaxiini daarun mata ma yazurha sairun li hudan yasaat hiya daaru daarul xaqi wa diini maa ngi ñaan ci daraja yi yërmande yàlla jii di rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yàlla ko xéewale jaam ñi maa ngi ñaan ci dara jaam yàlla may ma ma siyaare ji madinaam ja mooy dëkkam boobee di madinal munawwara ne daaru rayaaxiin ne dëkk la boo xam ni dafa eh, neex ndax dafa xeeñ xunn ak gëtt gu neex goo xam ni mooy gëttu nekk ga fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam nekk ma daarul matama yesurha zairul yahudan yasaat ku ko siyaara rek te njub tax laa jóg xol bu fiix nga fay nekkee tax àdduna ak alaxira moom nga fay jële maanaam ni muy waxee dëkk ba ak nam koy misaale loolu yi sax nag leen am na ci mooy fi ne fii ak demoo ba biir Madina mën a war a mënoo dégg bayit woowu sëñ bi wax maanaam dëkk ba moom am na lu fa ne loo xam ni ruuxaaniye bu fa ne boo xam ni bu kawe kawe la boo xam ne boo fa ne saraax rek yëg ko moom suñ wax ne daarun mata ma yazur ha zairun li fan yasaat ñaan na ko ba taay yaa rabbi zawral bayti wal madina suñ borom maa ngi lay ñaan nga may ma ma siyaare sa kaxaba ga ak al madina al munawara ziyaaratan an riya masuna léeg-léeg sax muy mébét yaa laytani qad zurtuhu bi jasadi ka xaatiri xatta yuzila awadi wax ne ak neexoon ma mën koo siyaare ji sama jëmm mën koo siyaare ji ni ko sama xel mi siyaare ji ndax xel mi moom du fa jug xel mi waxtu ne ma ngay dem ak a dikk moom yazuruka minni xaytuma kuntu yaa muxyi fuaadi wa ruuxi sama xol bi ak sama ruux gi moom waxtu ne mi ngi lay siyaare si mën a rek wax mën a nekk rek maa ngi koy maa leen di yebal ñuy ñëw moom ruux gi moom waxtu ne du jug ci yow waaye nag ak a neexoon jëmm ji itam ma man ma man koo tuxal mu siyaare ji la ni ko ruux gi defee loolu wax na ci ba tey wax ne ak a neexoon ma mën a dugg ca bëgg ci dëkk boobee ba mën a fëriñ sama lex bi ci suuf soosee yaa laytani marraghtu inda qadami xaddi aw laxadani bi karami gis nañ léeg mu mel ni ku ñeewaa a munawara ci dëkk gañ dëkk ak rasulullahi war ko <laughs> loolu am na xasida gi nga xam ne moo tàmbalee ila nabiyin rasulin jaa ana bi hudan wax na ca ne ahlal madinati minni sarmadan lakumu abqa salaamin yutiibul qalba wal jasada laaziltumu dahra fi shawfin fi safwin wa tawsiatin yakfikum allahu fi daareeni man anada fustum bi kawni ibni abdillahi jaarakumu wa kawnikum xawlahu faltaxmadu samada ne yéen waa madinal munawara maa ngi leen di nuyoo maa ngi leen di yónnee nuyoo bu teey bu sedd xol te mën a seralu yaram mooy maa ngi leen di nuyu nuyu ba gën a kawe daal yàlla na ngeen sax ci jàmm ak xéewal te yal na yàlla fegal leen mbooleem noon yàlla yi waaye nag da ngeen xam ne am ngeen xéewal fustum bi kawni ibni abdillahi jaarakumu wa kawnikum xawlahu faltaxmadu samada maanaam am ngeen xéewaluk dëkkaaleg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doomi abdullahi ji sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wa kawnikum xawlahu mooy nekk ngeen nekk wër ko waaw boo gisee xam nga madina gépp nañ dëkkee yonte bi daa nekk ca bërëb ba tabax yi wër ko kër yi wër ko wa kawnikum xawlahu nekk ngeen nekk daal ci wetam wër ko xéewal la gu rëy moo tax fal taxamadu samada na ngeen sant yàlla bu wër wër ci li ngeen nekk ndax loolu bari nañu ko mébét bari nañu ko bëgg ñoo xam ni cofeelu ak bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tàkk ci seen xol ñu am yéene bëgg faa ñëw te mënuñu ko ñëw waxuma laa nag dëkk ak moom moo tax mu leen wax na ngeen sant yàlla bu baax a baax a baax moom ci moom daana wax ne sama xol leen rek moo koy moo koy seral te mooy mën a siyaara ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu tayibul fuaada zawrul bayti ma al madinati qubaylal fawti bala ma fay jóge daal bala maa génn àdduna lenn rek moo mën a seral sama xel ak sama xol mooy ma mën a siyaara ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na nag dafa amoon gàllankoor moom gàllankoor boobu wax na ko ba tàyyi wa huwa alladi iqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru maanaam moom dañoo gàllankoor sama jëm ba mënumaa dem siyaare ji waaye sama làmmiñ ak sama xol waxtu ne nag ñi ngi leen ñu ngi siyaare ji moom ñeen làmmiñ bi moom waxtu ne bi ngi siyaare ji xol bi tam waxtu ne bi ngi siyaare ji waaye jëmm ji nag moom dafa gàllankooru am na feneen fu mu wax ci futuuxul mukarrami wax na fa ne xasattu zawrahu wala xawla wala quwata illa bi ilahi musjada maanaam bëgg naa ko siyaare ji waaye nag benn pexe ak benn kàttan fi ne awma ko bu ko mën a defee Euh, gàllankoor boobu yi nag ku ne xam na ne moom suñ Tuubaa xam nga euh, bi fi Mamadou Ansari nekk jóge diir bu néew lañ ci teg bi mu ñëwee Tuubaa xam nga la ko euh, la Tuubaa bi jëlee ko fi yóbbu ko ci géej gi juróom-ñaari at ak nangam bi mu ñëwee itam réew mi def fi juróom benn weer ñu yóbbu ko gànnaar ñeenti at ginnaaw bu ñu yóbbu ko Thiène Jolof juróomi at ginnaaw bu ñu def ko résidence surveillée fii ci Njaaréem nga ne moom moom dañ ko gàllankoor moom Tuubaa bi ñoo gàllankoor njëkk loola itam waaj na waaye waaj na ba jekk fi ne at mi mu bëgg a mi mu mi mu demee ci tukki bi ci géej gi waaj na ba jekki ba jekk sëñ Basiiru nee na waxtaan na ceeg borom Daaru Muxti sëñ Madlum ju danga na nee na wax na naar bu ñu wax wul da xamdel abhumi nee na ko demal gànnaar nga waaj boo ñëwee ren ren ren ren aji waaye ba naar bi ci moom nee na ba mu demee ba gànnaar di waaj ci laa dégg ñu ne yóbbu nañ ko ci géej ga kon moom jekk na ba war a siyaare ji waaye gàllankoor boobu léeg dawul gis Sëñ Tuubaa ak mbaaxam mooy lépp boppam lay gis maanaam jafe-jafe bu am day jàpp ne moom damay jégal sikkam li muy tudde sikk ne lool ay sikk la ko tudde daa ne sikk si ma am xëy na rek moo tax yàlla nattama mënuma ko siyaare ji ndax siyaare waa eh, sëñ ba sëriñ ba te loolu kenn ku ne na ko xiyaas sa sëriñ maanaam am tawféex waxtu na ngay siyaare sa sëriñ nii loolu tawféex ju rëy rëy la fi ne gis naa borom daal Muxti mi sëñ bi nekkee gànnaar am na lettre ci lettre yi boo xam ne wax na ko ne ren boo ñëwutoon siyaare ji boo ñëwutoon siyaar si mbooleem ñii la bëgg danañ am lu la naqari ci yow nga xam ne siyaar ga mu siyaar si moo fekk loolu lépp gis naa itam ci majmuwa bi si laat gën mooloon am na kum ca ci mag ñi kum ci wax ne ko eh, lettre bu mu ko bind am yu mu ko wax ne ko lool yi de mën nga ci jàpp saafara la ci li ngay tawat li ngay jàmbat waaye nag la ca des moom jëmmoonte rek koy moo koy mën a saafara mooy nga ñëw nu siyaar si wala siyaar bi da day lu rëy rëy da cee ne jug ngir yàlla loolu cofeelu suñu borom da cee ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sahihu muslim gis nañ yonente bi wax ne daa am waajoo xam ni dafa jugoon doon siyaare ji mbokk mbokkam moo xam ne waaju baax la suñ borom yabal am malayka mu gàttandu ko ca buntu dëkk ba ne looy wut ci dëkk bi waa ji ne ko man ka daa am ko siyaar si mu ne ko lu ngeen seq ba nga koy siyaar xaa da ngeen am commerce bu ngeen seq wala xaalis bu ngeen seq wala day sa ci askan wala lu tax mu ne ko loolu lépp amul dama koy siyaar te yàlla rek a tax malaaka ma feeñu ko ne ko suñu borom moo ma yebal xamal ne xamal xamal ne suñu borom ci moom bëggël na la boppam ngir jug gi nga jug ngir moom ana jug ngir yàlla day lu rëy rëy rëy moo tax siyaar eh, am solo lool waaye Sëriñ Tuubaa nag ñàkk gi ñàkk mën a siyaare ji loolu ku ne xam ne am na gàllankoor yu leer moom waaye gàllankoor yooyu gisu ko woon moom daa jàppoon ne jëmmi boppam ak sikk na ma yàlla jégal ju nekk ci moom moo mu am tawfiix mën nga siyaare ji moo tax gis nga mu la ni aybi ani ziyaara wa artaji bi madxihi l bushaara maanaam sikk si ma am daal rek xam naa moo tax ma gàllankoor bu mënuma ko siyaare ji am na feneen fi wax ne loolu sax weesu na sikk xam naa bakkaar la moom ay bakkaar daal moom laa yore yoo xam ni moo tax mënuma siyaare ji yaxuqu ni dambi xata lam ara walam aral madinatal munawwara waaw li tax mënumaa teg bët rasulullahi li ci lu ay nelaw li tax mënumaa siyaare ji dëkkam bee mooy bàkkaar laa am xam naa yu rëy rek yoo xam ne moo tax moo dox sama diggante bàkkaar yooyu dañu gis léeg-léeg mu koy jégalu xafaaru ligfir dunubi wafkukan kabali bi man alaya li tarki zawrahu aaru man suñ borom maa ngi ñaan nga jéggal ma samay bàkkaar te dindi samay jéng xob bi samay jéng ci daraja yonente bi nga xam ne ñàkk gi ma ko ñàkk a siyaare gàcce la ci man bi man li eh, bi man àlaya li tarki sawrahu aaru maanaam ñàkk gi ma ko ñàkk a siyaare ji loolu gàcce la ndax woote li may woote ci bëgg ko andut ak ma toog bañ ko siyaare ji <laughs> bi man yu xaatibu ni fii zawri rawdatihi baytaani min qawli man bil urfi ammaaru zur man tuhibbu wa in chattat bika ddaaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamna annaka bu'dun an ziyaaratihi inna almuhibba liman yahwaahu zawaaru nee na dafa bayit yoo xam ne waa baax moo ko waxoon daa waxoon ne ki nga bëgg dëgg-dëgg lu sa digganteeg moom sore sori sori dalaa war a jaral nga jug siyaara ji ko sa digganteeg moom daal lu mu sore sore lu ay gott dox ci diggante bi ak i joor ak i eh, jànji nee na loolu wërtatee maanaam boo bëgg dëgg-dëgg bu wéree loolu wërta dox sa digganteek siyaara ji ko moom si itte jëpp da war a nekk ci nga dem siyaare ji ko maanaam ak soree daal wërta dox sa digganteeg siyaare koo bëgg ba bëgg ko a wére wa innal muhibba liman yahwa sawa nee na bayit yooyu nag neen fu ma ko dégg day mel man lay waxal moo tax toog gi ma toog daal ñàkk ko siyaare loolu daal ma gàcce la ci man loolu la suñtu foofu la suñtu wa moo tax léeg-léeg sax ñu gis wax woo xam day mel day xaw a wax yenu tiitaange xam nga bëgg ak tiit dañuy ànd waaye xaw naa tiit nekk ci àdduna ba jóge fi te teguma ko bët wala gisuma ko loolu daal moom yesu uni mawti wa ayni lam tara walam aral madinatu munawara loolu wax na ko wax na ne yesu uni aybi wa ayni lam tara walam tara al madinatal munawara gis nañ ci njëlbeen nga def na xasida goo xam ni eh, maanaam gu gu gu rëy la xitaala boo xam ne yaakaar naa ëpp juróom-ñetti bayit waaye wax na ca ne fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi maanaam xol bi mi ngi gësamu fi ne nga xam ne amatul ak dal mënatuma ko am daal xol bi daal fi ne muyituma jàmm mi ngi gësamu bëgg siyaara ji raw dub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boobu yaa layta nii tirtu mooy ak a neexoon ma mën a naaw <laughs> yori laaf mën a naaw aw lii kaana durnuufu wala ma am giléem gu rëy gu mën a dog gott bi aw niltu zaadan baliixan wala ma am yóbbul boo xam daal dana danaa ko mën a yóbbuloo ci yoon wi aw qadartu ala qatil mahaamihi wala mu mën a dog gott bi gott yi daal li muy rëy rëy sama digg ak Madina xëy na sori na àll baa ngi fi géej yaa ngi fi xëy na waaye ak a neexoon ma mën koo dog xaytu shawqu maaluufu likay azura rasulallahi maljaana bayit yu rëy ci ak cofeel wax ne fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi yaa laytani tirtu aw lii kaana durnuuf aw niltu zaadan baliigan aw qadartu ala qatci lmahaamihi xaytu shawqu maaluuf likay azura rasulallahi maljaana yowma alqiyaamati mahma xaaza taxwiifu waaw kon sëñ Tuubaa foofu la nekkoon amoon yitte yi bëgg a siyaare ji lay waaye nag tubaab yi nga xam ne ay noonu yàlla lañ ñoo ko gàllankoor yóbbu ko ci géej gi lu mat fanweeri at ak ñaar ci dundam ñu yor ko di ko këlikële ci loo xam ne defu leen dara moom deful waxul moom ah eh, suñ tubaab deful waxul tooñul kenn itam mësta rey sax melentaan mësta wax ci keneen itam xam nga loolu ak tooñ mënu mënu koo kii moo ta am na fu mu wax ne fu mu leen wax ne zalamtumul abd alladi laa yantaqim li nafsihi maanaam tooñ ngeen jaam boo xam ni moom dadul fayu ngir boppam rek moo leen ci musal waaye li ngeen ko def ëpp na xam nga magum jëm nga génne ko ci njabootam fanweeri at nangam loolu xam nga tooñ mënu ko rëy gënu ko rëy teewul nag bi mu xamee ne mënta siyaara ji rasul lay nag ci la tàmbali di ñaan nag suñu borom ngir mu wan ko ko nag ci loolu ay nelaw kulla zamanin la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa argabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa huwa alayka bi aziz di ñaan suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan rëy loo xam ne xam naa ne moom na lool waaye nga wan ma ko ci dul ay nelaw nag loolu yi ñaan na ko ba tàyyi eh, gis nañ ci eh, ala man alayya wax na ilahi fasalli bi geyri intiha ala al mustafa dil muhaya sabih ginnaaw bi wax ne salaatan turini huna wajhahu iyaanan li yashfi qalbil jarih maa ngi julli ci moom julli goo xam ni dama ci fas nga wan ma ko nag ma gisee moom loolu bi mu nekkee fii ci Touba ca ay sasin mooy 1311 ca weeru koor wax Cheikh Abdoulaat Mbacke mu baax ma wax na ne ci bi muy lixtikaaf foofu ci jàkka jooju ci Daaru Xuddoos sëñ Bachir wax na ne ca la njëkk gisee Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci ay nelaw loolu sëñ Bachir a ko wax awalu ma aayana rasulallahi sallallahu alayhi wa waaye bi mu ko gisee da ko gis ci mu mel ne lu mel ne rideau lañ doxalee diggante mu moom mu gis mu ànd ak ñenn ci ay saxaaba waaye sëñ bi xam nga loolu duy ko mu ne yonte bi moom lii bëgg naa ci lool waaye nag dama laa bëgg a jege nag bëgg na jege gaañoo yonte bi ne ko ah loolu it nag boo ko bëggee du doon lu yomb ndax ñii dañoo ànd nag man di taxawal diine ba joxe ci seen bakkan muy waa ahlu badrin léegi nag li ñu am boo ko bëggee am faw yow it ay maanaam nga sa yitte di taxawal diine te itam da nga ci daj lu ne te loo ci dajit nga muñ ko te doo dellu ginnaaw sartoon teg moom sart yëpp ba àggal yun suñ suñ tubaab nangu sart yëpp <laughs> mi loolu moo tax bi muy dem ci géej gi foofu la ko tàmbali gis nag gis boo xam ni dara doxul seen diggante seen diggante diiru géej bi itam géej gi itam léeg mu gis ko léeg-léeg mu mu mu du ko gis waaye bi ne ba gànnaar nag ca dëkk sa sin foofee la wax ne daama rasulullahi ibnu subaayni fi ne moom waxtu ne maa ngi jàlloog moom sallallahu alayhi wa kon eh, loolu liñ ci jànge rek mooy pas-pas ak pësteef ñaar yu mënta ñàkk ci ab taalibe Sëñ Tuubaa lii mu am li ko may pas-pas bu kawe la ak pësteef bu bu rëy ak bëgg gu wër itam ak mu jaral la itam mu jaral maanaam léppam dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu maanaam léppam da koo joxe ngir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam maanaam eh, maanaam ginnaaw maanaam li féeg yow bi eh, wut alali àdduna wala sa kërug bopp wala sa njaboot maanaam ji jiital nga ko ci kaw sëriñ bi rek xamal ne yow dese nga sëñ tubaabam fa mu nekkoon mooy léppi àdduna moom da ko teg jiital nag bëgg mu bëgg rasulullah loolu moo may li mu am lépp ci yàlla akub yonenteem moo tax mu am ci lu kenn amul ndax pas-pas ba mu ci doon doxee wax dëgg yàlla yombatul nga gis ku ko ku ko ku ko xam rek wala ku ko séen wax mu laa nag ko ca nekk kon noonu talibe itam loolu rek moo nu war na kenn ku ne eh, Cheikh Abdou Khoudous mi mbakki mu baax ma dara wax ne la fi nekkoon jugu fi waaye nañ ko daa wute moo moo moo soppi ko nga xam na ne mbir la fi nekkoon lu ci waay wut nañ ko daa wute rek da nga ko amee nañ ko daa amee ndax sëriñ si masalan joxewuñ yàlla mooy joxe maanaam pas-pas bi ngay am ci sëñ bi loolu danga koy def ngir yàlla bu ko dee yàlla nag mooy gis ne boo gisee ne dëggu nga te mu nattu la ba xam ne li nga ne wér na ci yow rek mu jox la li ngay sàkku moo tax kon lu way bëgg rek ci lu baax ci li nga xam ne moom la mag ñi daa am ci sëñ bi loolu lépp mënees na ko sàkku ba ba waxtu wi aajana pas-pas aajana dëggu aajana wér aja nag def te yàlla kese kese tax sellal bañ bëgg ko xam lii ak ko gis bañ ci wutuk cant def te yàlla rek tax loolu lépp la aaje noo ngi jégalu bu baax di delloo nuyu sëñ eh, koso mi nga xam ne mooy su mooy sunu bunt ci sëñ kara di siyaar sëñ bi bu baax a baax di siyaar itam mboole mbokki taalibe yi di ñaan yàlla mu àggal na ci jàmm te mbool miñ ñu ci def ci lu baax lépp yàlla nangu ko fayal nu ci sunu kilifa yu baax yooyee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.